bi muy dem boobu mu ngi doon jëm kër ummu haani bu ummu haani jigéenu Seydina Ali la ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñaar moo ko invité woon reer yonent bi mu laaj yonent bi loo bëgg yonent bi ne ko toggal ma cere ak meew meew gëlëm mu defaral ko cere mooy sunguf ak meew bi yonent bi du dugg rek jibril na cëpp ci kanamam ne ko sa borom nee na reer boobu tey doo ko mu ne ko lu xew mu ne ko ni mu ci yow li nga tontu ak ni mu kontaanee ci yow ak muñ gi nga muñ téenal yonent bi téen gis asamaan mu ne ko xoolal sa ndeyjoor mu xool ndeyjooram gis lépp di ay mu ne ko xoolal sa càmmoñ mu lépp di mu ne ko xoolal sa penku mu ay malaaka mu ne ko tourneel xool gannaaw lii nag mu ne ko sa borom nee na dafa bëgg ci yow ndax muñ bi nga muñ daf lay récompenser daf lay fay fay mu ne ko lu may fayee fi yonent bi taxaw bi wax rek tuuti rek alburaax ne cëpp ci kanam alburaax kenn mosu ko bari nañ nag alburaax kenn mosu ko waaye yàlla déy na ko benn code comme seen code yi ngeen di def ci seen portable déy ko alburaax déy ko yonent dafa ne alburaax boo demee il est modeste bu suufee bu wàccee boppam waaye modestie boobu tey moom laa bëggul mu indiwaale ko fii mu ne ko du may mu ne ko boo demee rek del cëppi cëpp bu la bëggee yéeg rek cëpp am na baat bu ma ko wax li muy modestie modestie fokk mu wax baat boobu pour nga mën a dal alburaax ni cëpp yonent bi bëgg a yéeg xam nga fas diggante alburaax boo ko bëggee yéeg mooy doomi fas ak mbaam berkel loolu la toll yeggul ci fas weesu na mbaam di cëpp-cëpp rek yonent bi bu bëggee yéeg rek mooy cëpp-cëpp mu jël loxo bu tedd ma nag teg ci ndigg alquran ne ko hee dama bëgg cëpp-cëpp ji na dal xanaa xamuloon ne ki yàlla bind mu gën ci bindee fi moo fas yéene yéeg ci sa kaw mu ne dekk ci suuf loolu lay kon yonent bi yéeg jibril ne ko xoolal mikaayil ci càmmoñ asraafil azrail jibril ci kanam jibril jiitu alburaax topp ci jibril vitesse am mooy fu xel mi yegg jëmm ji yegg xam nga kooku gaawul alburaax vitesse am mooy fu bët bi yegg tànk bi tege fa yàlla moo xam loolu mooy escort moo tax mbay doon ne mbay ni mu ko daan wooyee noonu la lii may waxi ku ko bëgg a xam demal ci téere bu ñuy wax euh, euh, kii muxtaarul ahadis léegi am na traduction en français muxtaarul ahadis yonent bi moo nekk lil boppam ci xadis rañaan gi fi jaar ak ni mu amee mu nga ci téere bii ma leen wax muxtaarul ahadis rek jibril départ comme alburaax mu ngi gis jibril te jibril fu xel mi yegg jëmm ji yegg fa xam nga loolu gaaw tuuti ñu ne der jógee Makka ne der Medinatul Munawwara yonent bi ne Jibril fii fan la mu ne ko fii mooy Yasriba fii nga war a mujjee sa dund génn Màkka ñëw fii fii mooy doon sa jumaa ji fii mooy doon fi ñu lay denc ci ëllëg leer yi fi nekk sa borom nee na nga ziyaara leen ñu door a def ñu continuer dem bayti lax bu ngeen déggee tubaab yi ne Barthélemy Barthélemy mooy bayti lex baytul lax bi mooy fi yonent yàlla Isa danee àddina bu nga jésuise Israël fa la nekk ñu foofu ne jëpp mu ne ko fii mooy mu ne ko sa mbokk mi Isa fii la danee àddina leer yi fi nekk sa borom nee nañ la ziyaar leen tëj dem ñu départ ne turu Sina mu nga ca turu Sina mu ne ko fii mu ne ko fii la sa borom wooyee woon yonent yàlla Moussa jox ko Tawraat nee na leer yi fi nekk nga ziyaare ko te màng mu ne mu ziyaare màng mu ne cëpp nag baytul maqdis moom la imaam jàng léegi xam naa imaam moom la kashfu mooy kuy wax lu ñëwagul gis nga dem jàng léegi moom lay waxtaanee ni te maag moom gisante wuñ foofu la yàlla àndoon nag subhaana asri bi abdihi laylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi alaqsa alladi baarakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiu basir yàlla ne nag bu leen werante maa jëlee sama jaam màkk ci guddi indi ko mu jaar fi mu jaar ba fii baytul maqdis mu jiite 124 mille yonent yi deewoon ñëpp yonent bi jiite leen ñaari rakk yàlla affecté waat ci ya neex ci asamaan yi ñu teeruwaat yonent bi foofu yàlla rek yonent bi nee di yegg seen ba baytul maqdis cent vingt quatre benn sàppe la bu ñaar benn rang nee na ma commencé ci bopp bi aadama bëccëg cat la Isa xool leen ñoom ñëpp ne déey sa doléance pour bu demee ci sama borom sa confiance mën a tranquille mu ne sama borom ne ma ñaari discours dina am nga door a yéeg ñu ne ko ban ak ban yonent bi ne leen sama borom nee na sama maam Ibrahima ñëw def discours sama tubandoo yonent yàlla Ibrahima jóg taxaw ne ma am sët bu kenn am kii lañ doon xaar bu du doon moom suñu affaire du baax boo demee ne yàlla ñun ñëpp ay suq lañ woon rek yow lañ doon publicité. ba nga ñëwee la làmb ji tëj yaay borom daraja ji yaa kowe ci yàlla bu du doon yow li ñuy baax baax yàlla du ñu bind ay waay yàlla bu la ca topp doo dal di dellu ci ram mu ne yoon ci yàlla Isa moo tax ko am daraja yoon ci yàlla Isa dafa la 33 ans la am dem kat yéeg asamaan 33 ans moom maam jaara bu so ñoo tolluwaat yoon ci yàlla Isa ñëw ne ah ñemewu maa ah, ne maa leen gën de waaye kii de maa sës ci moom inni ubashirukum bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmadu kii la woon kii laa doon annoncé te ñëwaguñ kii mooy daj dëpp gi ku bëgg a gis yàlla gisal kii ku bëgg a xam yàlla xamal kii ku bëgg yàlla teral la teralal kii ku bëgg yàlla bëgg la bëggal kii ku bëgg yàlla fonk la fonkal kii tànk yonent bi ba yaramam tàng ne ko bu ñu fàtte boo demee ci sa kanamu borom yonent bi taxaw ne jazaakumullaahu xayra lépp lu leen naqari dinaa leen ko fajal ci sama kanamu borom te ngeen seede ne leen war ci biir du ma leen war ci biti maa ngi dem waaye maa ngi leen di yóbbaale giw rek albulaax rajam xam nga lu tax mu dem baytul maqdis waatul buyuta min abwaabiha bi ma wax léegi yàlla moo ne demal jaar ci yoon yoon wi na ko jaar ca yoon ko kër yi mu ne bu ngeen di dugg ci kër na ngeen jaar ca buntu ba baytil maqdis fa la buntu asamaan ubbi ko asamaan dafa am bunt moo tax ponkal monsieur Alxaaji Omar yu ne xaw ma mbeddi asamaan yi ak mbeddi suuf yi man Omar Fuuti yu ban laa ci gën a miin xaw ma asamaan dafa am bunt buntu asamaan mu ngi ubbi ko baytil maqdis ca jumaa ja moo tax yàlla santoon yonent yàlla Suleymaan pour mu tabax jumaa jooju ba mu koy tabax xubba bi mooy coupole bi lépp or la woon jinne yee ko ci defoon mais mujj gi da ko xeetal muy sàcc la taxoon mu sant ko mu tabax ko fa parce que mooy porte ak asamaan fala asamaan ubbi ko benn buntu la am asamaan mooy baytul ma màkka xam ngeen lu tax ma loolu damay bàjj rek ñu dugg ci muy gaam beneen koo xam ne dañ naan def na or moo tax yàlla ne yonent bi qad nara taqallubu wajhika fi samaa فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم يبدو فولوا وجوهكم شطرا Màkka indirect la tey bu soxla woon ci ñun président de la république nga jot secrétaire bi ak nga jot ko moom bu lay gën a ah yaakaar naa jot secrétaire bi jot président ko gën a neex Màkka mooy direct masjidul aqsa indirect la moo tax jëf yëpp yàlla daf ko daan dajale yóbbu saratu malaayika yi ñu jàll ko masjidul aqsa mu door a yéeg ndax buñ doo asamaan fa la ne mais màkkatal mukarram nag kaaba gi tey baytil maamuur yàlla nga wax ci alxuraan mu nga ca asamaan yi juróom-ñaar baytil maamuur yonent bi nee na bu doon wàcc tey nekk day tege ci kaaba bi lu yées du biñ laajee yonent bi ne ko baytil maamuur lu tax yàlla def ko mu ne ah min qablu nash'atil aadama fekk loolu lu jiitu yàlla di bind bind maam aadama mu ne fekk na baytil maamuur am ñu ne ko du fa ne mu ne bés bu set soixante-dix mille malaayika daañu dugg tawaaf jaamu yàlla génn te dooñu dugg ba yow a xeex seetal ba yàlla bindagul maam aadama soixante-dix mille par loolu ñaata la moo tax yàlla ne wa maa yaalamu junuuda rabbika illa hu yàlla ne sama armée kenn xamul nu mu toll mu dul man dégg tax nag baytil maamuur boobu nag jëf yi ñuy jëf yëpp fa la ko yàlla di regroupé affaire la yonent bi xam ne indirect faay man na ci am te masjidul aqsa indirect la faay mën naa am diir bi ñuy yóbbu jëf yi mu ne yàlla man daal ci xolam la ko wax de indirect bi daal ko direct bi laa bëgg muy màgg yàlla mu yónnent bi bëgg bëgg na ne ko xat ca dëkk dëkk dëkk dëkk nara gis naa la taqallu ko yaa ngi wala ba direct wàccaale sa xar kanam ila samaay jëme ko asamaan li nga bëgg xam naa ko ay man man de do sama doom de waaye billaay bëgg naa la bëgg boo xam ne loo bëgg bëgg ko man man yàlla bi la bi fa wàññi wëlbati wàññi ko ca xar kanam bii mas ilal masjidil xaram nga jublu masjidil xaram paap nii dem na fa masjidu qiblatayni foofu la amee fekk yonent baa ngi jublu woon ñaari rakka yu njëkk yi juli sele jibril wax ko ko rek ci bi la jub ko rek jublu màkk moo tax boo la yonent la woon foofu woon bi ko ko yàlla waxee automatiquement mu jublu nag màkkatal mu kàddu yàlla ne wa haysuma kuntum yéen ñi gëm yonent bi te ay jullit fa wallu na ngeen jubale seen xar xar kanam yi xibalal masjid yi ca penku jàkk ja moo tax ñun ñëpp ñuy jublu penk waaw lu ko may loolu jikko yonent bi nag def la asamaanu benn aadama la fa fekk mu di ko teeru asamaanu ñaar yonent yàlla Isa ak doomu ndeyam ja Zakaria ñoom ñaar a fa nekk loolu ba asamaanu juróom-ñaar fa la fekk maam Ibrahima mu toog wéeru ci baytul maamur di jàngal ay xale yu tuuti yonent bi laaj ko ne ko ñii ñan la mu ne ko mooy doomu jullit yi faatu woon te jotuñu woon al alquran wala ne waaye jeexaluñ woon ñoom la ma yàlla affecté fii ma di leen jàngal ba ëllëg bu ñëwee nga xam seen way julli ca burkaaña moo tax ku ci am doom suñu dara su rek dëgg moo lay gàtt ñu ëllëg àjjana mu nga ca bayti maamul maam Adama maam Ibrahima di ko jàngal yónnam ci beekoo mu ne ba may ràññaan fekk naa ko foofu doom di leen jàngal mu ne ñu bari doom ku mos a faatu rek ba ilaa yawmil qiyaamati ku faatu day jullit rek te nekk âge boo xam ne majeur rek la affecté foofu ñu di la jàngal maam Ibrahima moo yor seen àll kon jërëjëf yow mi yor àll way xale yi ramadan yonent bi nag fa la yàlla joxee njukkal ci kooku ko may loolu rek laa ci jublu pap moo ko ko may su fekkoon ba defee am na ci droit mën naa fayu yàllaa ko ne bu la neexee nga fayu dafa ne tànn naa baale tànn naa jéggale ndax xamuñu ma buñ ma xamoon duñ ma ko def xale ba dafa xëy rek ci timis gi rëcc génn kër gi dox tuuti génn dugg ci gott bi gott bi xam nga moo njëkk kër yi daawul sotee àll bi ndekete fekk na gaynde bu góor doom yi tëdd ci wet mu ñëw yéeg ne ñoom koos ci koo gaynde di lokkati bët bi xam nga day xonk di niroog xalu mu ko lokkati gaynde bu jigéen gi ne ko moo nijaay doo wax ci kii mu ne ko ah, ah, kii daf ko rek baay bi di seet doom ji ci gis ñëw ba jub ko rek seet mu ne seen mu ne ñoom koo ci kaw gaynde gi di luqi bët bi mu arrière di arrière di arrière di arrière di arrière ba ci kër ne tàll xam gaynde gi ne ko kay moo ma xam waaye kii daf maa xamul moo tax xam nga ni lu mu rek mën na ko fay waaye loo xam dama ciy tooñ jigéen ñi ma ne leen yéen ñi xam or xam wurus xam xaalis xam ngeen fi ngeen koy def ku ci am sa or da ngay ut bayet bu rafet waat bu rafet décoré ko def ko ci laal ci yooyu ne yu fëy yooyu nga xam ne tabarkal laal ko ci suuf def or bi tëj buwaat bi yëkkati sa taatu waxande mu roof ko ci suuf doyatul nga jël caabi ne karet karet seet fu gën a làqatu nga sànni fa caabi da nga xam valeur bu or xam valeur bu jama góor gi yéen a ngi nii ku ci fayee ko sa salaire 1500 euros 2000 3000 euros est-ce que ko fasal ak sànni ci benn bi moom kay da ngay gestu gauche droite kenn xool na nga koy jabax ci poche boo ñëwee tëju ca douche ba. nii naa ko jox Mario. bu dee Pape Samba lii de moom mami laa ko président Ramadan nii di sii du bokk moom bu dee Chérif Ibrahima mu ne ah lii naa jox yatta lii naa Aminata Diop lii Karimatu Jaay bu paree nag Pape Samba bu paree kat day ñëw waaw kay mami ah Chérif day fomp di boole bu dee maa si kenn daal di Chérif non non impôt yi day rey de. non vraiment kon ñi liggéey fi amul njëriñ non ça c' est incroyable. ma ne ko waaw Pape lan la ba jàpp non si dafa bëri vraiment ñoom itam xam naa ko ne Pape yooyu tam day jéem a baax tamit. Pape Galaw waaw Pape Galaw indil loo am rek ñu seet ñu doxalee. ah waaw waaw waaw incha allah. léegi lii fayal courant bi lii fayal ndox mi lii mooy dépense u weer bi matul sax ne garaawul incha allah après incha allah ba yow ma xiyam na bu góor ñëpp incha allah duñ mottali mukk waaye yéen ñiy mottali yàlla leen di fay ku ci mottali rek jàppal ne yàlla lay fay xam nga lu tax mottali du farata ci yéen mottali warul ci yéen daf leen di neex rek ngeen def waaye su ngeen ko defee yàlla fay la xam nga fu mu leen koy fay ci seen njabootu ndaw ji kon dee leen muñ tey mottali rek waaye góor leen matal dee leen bari na bor bari na moo tax nag mbokk yi nañu muñ muñ mooy bi njëkk jikko bi gënal yàlla ci jikko yi mooy muñ gis nga boo muñu waxtu yi juróom sax doo muñu julli waaye tam des ñu maakal nañ yàlla ñu ne ko lu tax mu ne ñoom buñ julliwul seen conscience sax du tranquille maanaam buñ mën a nelaw boo fekk ku tàmm julli mën a julli bu yoree benn buri julli day mel ni àddina lañ ko yem waaye am na boo xam ne nag ñàkk dali la moom yoonam tewu ci day simile kimile naan oh yàlla baax na yàlla baax na waaye la ma sëñ Abdoulaye Abdoulaye waxoon ca Touba beneen ba ma koy seeti jee maa ngi sëñ bi waxtaan ko mu ne ma ay dara man gaa ah man de Sénégal yi laa xam nañ ñu ma ne ko nag seen dam xel yàgg na ci dëkkee lu bon te yaakaar man de loolu de man man man man Abdoulaye de xaw ma ko fenn jànguma ko fenn dëkkee lu bon yaakaar lu baax rafet njort lu yegg na foofu sëñ yeggu fa nañ waxal ci dëkk te Sénégal koo wax léegi mu ne eh doo yàlla yàlla baax yàlla ba mu baaxee la la yàlla baax na kay yàlla baax ñun moomuñu àjjana moomuñu safara waaye li yàlla digle sañ nañ ko wax li mu tere sañ nañ ko wax. wala déet waaye Sénégal léegi booy wax rek ne eh, du yàlla nañu dimbale fekkay jikko yi moo wàcc moo tax yàlla ne jikko dana wàcc wàcc wàcc ba ulaa'ika kal an'aam mu ne dañu ñu mujj jikko yu suufe dana suufe ba yem ak juri yi mooy fas yi xar yi bëy yi nag yi ganaar yi ak mbaam yi mu ne bal man yàlla li fi nekk sax bu ma tooñ ñooñu buum ñoom ñi ñooñu jamono dana ñëw abal ñoo gën a réer mbaam yi gën a réer xar yi ak fas yeeg nag yi ñu ne ko lu tax mu ne mbaam sax boo ko ne kor mu taxaw ganaar boo ko ne mu ñëw ah fas boo ko ne ali mu daw gis ngeen léegi dañuy doom te ay fas ak i ganaar ak i gaynde karawaas rek lay yor taj mu xam li ko wax nit rek nga naan ko hee mu ne la hee wala déet yàlla ne dinañ dem ci jamono boo xam ne nit ñi ñooy gën a njàddale sax jullit te fa lañ toll léegi fa lañu toll kenn moo tax faw ñuy waxtaan ni jikko te bi ci gën mooy muñ muñ muñ foofa laay tëjee bu ma jëlee lax dara bi daman Pape Sam yal nañu yàlla defal muñ billaahi wal kitaabi ku muñ yàllaa lay fay gis nga bu muñul doo julli julli bu yegg yàllaa ko wax wa innaha la kabiratun illa ala alxaashirin nee na ku muñul weeru koor sax doo ko xam nga ah mag mu teg ndoxam mu seetlu muy ah nañ waxante dëgg Ousmane mag mu teg sëñ mag mu teg ndoxam mu set du kuy fajar ak yéen seen heure or yi ni mu guddee ngay ëppali rek ah laa ilaaha illallaah ay man fu ma jëm foo jëm fa nga jógee woon ah lii nag kenn mosu koo gis nag jant bu sommuk te wax ji li muy bari bari kat ñeme wala ak wax wala déet pom jaa ngi nii banaana baa ngi nii te mënul nga cee muul ne muul kenn du ko loolu soo muñut doo ko def xam nga soo muñut fa ngay mujj xool góor xool droit kenn xool ma ne xaw na de xaaral ma mos ci rek daraw kenn gisuma waaye borom bët bu rëy baa moom mu ngi lay gis kon boo muñut sax doo wóor soo muñul doo génnee asaka ndax boo dajalee bu bari nga ne naa ko soo ko ñun boo ajijee màkk tourisme ngay def léegi imaam a ngi ciy joxe ay exemple ndax yàlla dafa ne booy aji màkk wala ngay umra fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xajji yàlla ne ne aji bul werante bul xuloo bul saaga bul xeex fil xajji ci biir aj man de maa gisal sama bopp jëmm naa kenn nettaliwu ma Sénégalais yi di njëkkante kaar yi di ci vitre yi palanteeru kaa bi benn meer ñu xëcc ko rek mu dagg saagaw ndey ma ne ko ngir mais mu ne doomu maa tey te yàlla ne bul ku la ko baal ma ñaaw ci ko tax tey boo demee Màkka ngeen baal ma billaahi wal kitaabi bu sabati de man je suis ci ndey ci bàyyi kon du ma sañoon sénégalais gën ci réew mooy dàq ci réew waaye tey unanimité laaj leen ku leen neex boo demee màkk sénégalais yaa fa gën a suufi yi seen toilette yaa gën a salte day buuj buuj am nga buuj dafa ne ñuy rang day xutoon maa la fi jiitu boo demee ci naar yi foo dem ci ne nag ba ci ba dafa set wecc wow koŋ doo gis benn désordre ñun rek ngay gis sor ko sor ko ak wax ju bari rek mbekk mbekk comme ku nekk Sandaga li may wax ba ay lu ma lu ma lu ma créé boo demee mag nga gis ko ci sénégalais yi rek nga koy gis te nigériens yi ñooñu kii koy biir mag bàyyi nañ ko ba buñ la gisee nga ñuul sax dañ la naan Nigéria Pape dëgg la wala dëgg yaa fay nekk rek di justifier non sénégalais gambien nanga mais ñoom nigérien rek lañ xam parce que ñoo mais loo gis benn désordre benn pakistanais dafa may dañ fay waxtaan bi su mu ne ma wuu yéen sénégalais yi man jiite ñetti pakistan jiite mille pakistanais moo ma kii moo ma gën a jiite ñettu sénégalais ma ne ko mais lu tax mu ne ñun pakistanais yi buñ la wóoloo bi jiital la yow rek la ñu def mais kenn ku nekk idée nga war a jël effectivement moo tas doon moo tas daayira yi moo tas yëpp président day toog bii joxe idée wala gérer non non non non je ne suis pas d'accord président moo tax réunion sénégalais dana am 48 heures réunion tubaab 2 heures de temps ndax sénégalais lu mu wax waxaat lu mu wax waxaat bu kii waxee mu bëgg ñu appliquer idéem kenn ku ne day bëgg ñu appliquer li mu wax à la lettre loolu mënul nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko di wa shaawirhum fil amri waaye fa iza azamta fa tawakkal ala allah mu ne ko diisool ak ñi nga ñi nga ñi la yàlla booleel waaye suñ la joxee seen xalaat ba pare seetal la ca gën a rafet nga jëfe ko te bàyyi leen nag wàkkiirlu ci man bi lay la mooy lu waaye bu décision jëlee nag jotee jëlal ba gën a rafet te wéer sa bopp ci yàlla maa jiite kilifa bi dee dëglul ñëpp soo paree lañ wax seetal la ci gën a rafet nga jëfee ko te bañ a dëgloo ci kenn dirigeant bu nekk noonu la war a diriger ba ci biir kër gi boo xamul sa njaboot rek ci coow ngay njaboot gi war nga leen a xam kenn ku ne muy jikko boo xamee kii jikko xam kii jikko di nga diriger kër am na ci say doom sax ñoo xam ne danga leen di xam-xam gu day ni ñoo ëpp yërmande ci yow waaye bu ko woon ñeneen ñi de boobu leen koy woon kër gi tas parce que di nga am doom yoo xam ne boo saxatee ñetti yoon sax ñu ñëw ne la papa lan papa mbaa jàngu waaye am na koo xam ne boo tëddoon ca lal ba bala lay romb dem doxe eh père père comment ça va bien kooku jàndari la xamul lu xew waaye boo ko nee jàndari nga sa kër tas da ngay naxante même kër gi nit ñi xale yi nga jur ne bokkuñ jikko mais war nga mën a am jikko yow en tant que père de famille en war nga am jikko boo xam ne mën ngaa gérer ñëpp te kenn du mel looloo war a am mais jikko koy maye dinaa koy wax jikko mooy yegg ba ci chariatul islamia dafa ne yow borom kër bu góor yaa war a joxe dépense mu ne waaye pour dogal lu ñuy togg ci kër déedéet bàyyi ndaw si yow Ramadan bàyyi sa Seynabou jox ko dépense bi rek te génn ci yow Pape Samba joxal dépense bi Mami Diop te génn ci yow Maas joxat ma leen dépense bi ci génn yow Chérif Ibrahima joxat ci génn moom moo xam kër gi surga yi fi nekk bu ma dee surga mooy ku dul borom kër gi bu góor bi jigéen surga jigéen gi moo xam parce que moom mi toog bu toggee ceeb ceebu jën benn mbay mu jeex tàkk dañ naan ko xóoy xam na ne neex na waaye bu toggee maafe gis ngeen lu xel bool bi kenn lekk ko di nga xam ne waa kër gi bëgg jumaa fekk yow borom kër gi nag xamoo loolu ndaw see ko xor moo ko xam kon bàyyil mu gérer loo xam ne kenn du loru ci kër moo tax waloon joxe defar na non toggal ma foofu yaasa quoi <laughs> ah baax na de waaye def nga ay baax na lool waaye def nga ay waroo woon na commandé dara buñ la laajee it parce que jigéen ñi tamit léeg-léeg ñu nattal la waaye wax ma rek waaye papa waaye bébé tur bu ne danañ la ko wax waaye moo naa moom waaye trésor wax ma waaye wax ma rek loo bëgg ma la <laughs> waaye bul fexe bi wax rek ne ko maman wala bébé wala wala waaye nekk fa di arabal ak yu kenn xamul nga dugg ci jaru ko jaru ko papa ñëw su ko defee kon jikko balaa jox ma génneel ma kii balaa heure bi moo tax jikko bi ci gën daal mbokk yi maa ngi leen di ñaan gis nga billaahi bu ci muñu bu ci muñu xam nga fooy muñ kam jàpp ne wala maara deytaan yàlla nañ ci yàlla mosal cancer waaw xam nga lu tax xam nga lan moo tax dafa am lu ñuy xeeb moom la wax euh, nu ngeen di waxee di ci tubaab souci waaw souci koy indi souci yu bari moo lay indil stress stress nag moo lay indil cardiaque moo lay indil mooy mujj yóbbee la cancer wala gorge wala euh, kii ñu koy waxee. boite yooyu yëpp moo la koy indil ci lay déparé. te la koy indi mooy di gis loo xam ne amoo foo ko jooyee moo koy indi jëkkër mayu la nga jooy ko ci kanam amoo doom joo ko mën a jooyee amoo xarit boo ko mën a jooyee ndax koo dem ci jooy ci moom mu weer booy dëtt rek mu woote Pape Samba la ilaha illallah ay waay àddina tukki na fenkat àddina a ah, waaw Chérif lu xew <laughs> ma noppi wallaay boo dul noppi di nga dañ waxante looy woote ah man de Pape jombi naa si ñu ma li ma rek wax ma lu xew ah Sidi Makhtar léegi la fa jógee waaye moom ma day dawaat de Pape nag entre nous entre nous ah Pape entre nous de Alaaji euh, Abdoulatif Gueye boo naa ne entourné wu Sénégal mu ne ci mbedd mi ko koy mujj fekk te day mujj yegg si ci yow mu ne nit day góor a dem ko de mu seet benn xaritam ko ah léegi nag ñu mu de dal di ko nettali xarit boobu dem ci beneen xaritam na ko maa ngi lay ñaan de bu ko wax nag entourné entourné bi day ñëwaat ba ci man mi ko waxoon li ma Chérif maa ngi lay nettali loo xam ne nag entournement noppi loolu ci mën na jóge entournement bi day wër na yegsiwaat ci yow mooy amuñu bàmmeelu biir rawati nag léegi amuñu sutura amuñu bàmmeelu biir léegi koo nettali mu woote téléphone nettali ko wala ka gën a ñaaw jikko na ci réseaux sociaux yi la koy balancer rek dem yoon nga naan ku ko ci def ku ko ci dugal ku ko ci wax fekk ka la gën a jege nga wóolu ko moo lay weer mbokk yi ci ko moo tax boo dul muñ damay wax ne toujours da ngay jël sa biir naaw gii bind ci saraxe naa xam nga léeg-léeg nga dégg ku naan maa tey maa tey baaxul danga ciy bind fii sabilillahi bu dee ci tubaab nu ngeen koy waxe donc voilà am na beneen moo bëgg na yokk donc ah mooy mayee naa ko ngir yàlla ah wala nga ci non rek waaw dee ci gannaaw bu dee ci àngale nga bind ci fa jiif baal naa ñëpp may naa ñëpp sama udaar ku mu neex waxal du la wàññi dara dara la la du kenn du la tiim naan maas maas maas maas ba dara daal la mukk wax amul fu mu jógee dëkkul fi mu jëm fa mu jógee la dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina dafa am benn waaye di ñëw fekk Aboubacar Seydina Aboubacar a toog rasulullah a toog mu def ko ni mu def alaajam di ko yekk musiba di ko yekk musiba di ko yekk musiba ba Seydina Aboubacar mën na la mu mu ne ko waa ji noppil wala ma fay bi ne ñokket dugub bi nii Seydina Aboubacar fekk ko ne rasulullah ati ñu yow kii gis na ne mu may saaga lu bon lu dem wax ma man fayuma sax dama ne ko noppil wala ma fay rek nga jóg dem sa biir bi mu ne ko Aboubacar diiru mu lay wax li mu lay wax ya maa ngi gis yàlla ngi yebal mel ni malaaka mu ngi taxaw jàkkaarloo ak yow su waa ji saaga mu jël yiiwoom jox na su saaga mu jël yiiwoom jox na ma gis ne yiiwoom wi jeex na mu ngi jël ay ñaaw def di ko sëf ma gis ne ñaawteef yi àttanatu ko yàllaa ngi yéegal say martaba yow di nga ne noppil wala ma fay laa gis malaaka bi dem mu ne ko bu malaaka ma demee lu ma fay defati man mu ne ko rasulullah loolu am na mu ne ko am na mu ne ko kon dootu ma ci jóg wolof moo ne ki la tooñ moo la toñ maanaam moo la monte pour nga yëg échelle la ñi lay tooñ échelle la pour yéegukaay ci yow nga dem ci yàlla métti na nag métti na de waaye bu mën na muñ amoo jëm ca yàlla doo ko mën a accepté te ñun ñëpp ko war a mën nag ndax yàlla lu mu digle ci alxuraan fekk na nit ñi mën ko moo tax mu digal leen moo tax mu ne laa yukallifullahu nafsan nga fi dee ko nu leen neex na léeg-léeg nga dégg ko naan waaw yàlla ne ko ñu lu dul liñ moom déedéet xam nga doo koy firee laa yukallifu tegu allahu buur yàlla nafsan daf ko tadwin benn bakkan ci bakkan yi illaa lur wus aha lam xam ne attan na ko mu teg dafa xam ne attan nañ julli mu teg ñu julli xam ne attan nañ koor mu teg ñu koor xam ne attan nañ màkk nga lu tax boo julliwul di nga nekk ci service bu gën a métti julli voilà waa kii dem entraînement sol ay baax ne day futti te julliwul tàkkusaan futti ak entraînement ak julli bu gën a yomb ah dañuy waxal ci dëgg entraînement julli bu gën a te julli entraînement la booy amee tiyaabu voilà waaw kay boo defoon li la yàlla sant yaa nga ca du ko gën a métti moo tax li ñu yàlla teg yëpp attan nañ ko moo tax mu teg ñu kon muñ dañ ko war a def mooy élément bi gën a neex yàlla dañ koo bëgg ci jaamu. jafe na nag waaye billaahi ku ko def armi ku ko def armi ren bi déwén di yëg ne yàlla jubóo nag muñ muñ muñ nañuy muñ nañuy muñ muñ te yàlla tax bu kenn topp kenn lu dul ci lu baax saabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha yonent bi yàlla nee na yonent bi njëkkalante leen ci yiw yi nga xam ne bu ma leen di fay fay leen àjj ñu ñoo xam ne moo ëpp asamaan ak suuf waaye kuy muñ rek la ko yàlla denc te gis nga gaañu moo dul muñ damay wax ne bu jimma nag xam nga nooy jéemee muñ fii de yaakaar naa amuñ ko waaye am na yu ko jege man de fraîche da ngay jënd juróomi da koy essayé jënd juróomi dërëmi man de di màcc rek ku la saaga bi sa xol tàng nga naan ndox mu tàng xam nga booy màcc ndox man de root ci robinet bi naan day sedd buy mooy gën a neex glace da nga yëg ni muy duggee ci sa xol buñ ko tàngalee yow nga seddalal sa bopp te baleen te bu lay saaga yi doo gis fu mu la mu marqué yi muñal doom yi muñal surga yi ci biir kër kuy liggéey muñalal ña la yilif léeg-léeg ñu teg la loo xam ne dana la ah jaratu ko naa démissionné boo ko defee ay am yamalu qul yamalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuuna wa saturadduuna ila alimi lxaybi wa shahadati fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun yàlla na yonent bi maa ngi wax ne waxal gars yi ne ñuy liggéey na ñuy liggéey dañuy liggéey qul i'malu aala daawuda shukran wa qalilun min ibaadiya shakuur tubaab yi moom dégg nañu waaye Sénégal benn nit di liggéey di nourrir vingt looloo ma métti ci Sénégal moom baax na de waaye day jur ñàkk jom te xoolal la ma ci gën a métti nag bokkal bu ne wàcc ci kër nelaw bi midi mu yeew gàddu sarbetam dugg ci toilette sëlmu du julli sax maana café gi yaa ñàkk jom boo amoon jom di nga ne maa xanaa la gënoon jekk sama ne soxna si ana café gi wala déet maa ana café gi quoi waaw naan sa café doos doos lañ ko tuddee nii am na ki ñàkk jom ñoo xam ne bii day wër kitaab bi rey leen sax daanaka tuuti mu dara damay jël doos quoi naan sa café pour pour boole ci génn nag lal sa siis ci bunti kër gi commencé caay di caay suba ba ba midi ba deux heures añ bi bu añ bi yéexee sax mais. maman añ bi pareegul quoi donc vraiment lii nag kenn xamu ko yow participe woo joxe woo dépense yaa ngi kaas wala dégg est-ce que lii c'est logique nañ waxante gis na Sénégal buñ seeree woon seen jur yi yëfi caaxaan yi ñu dund ko avancé nañ bu yàgg mais c'est pas normal benn kër nekk benn kër benn nit nekk fa di liggéey pour tout le monde non et encore non warul islam d'accord ci. boo amul loo sax xëyal dem ci marché bi xëyal dem ci marché bi yonent bi nee na boo amul loo def demal ci àll bi nga gor mat dem ca marché ba jaay dafa am ku ko mos a nuyu loxo yi wow ko moom rasulullah ndeysaan waa ji bi mu koy nuyu mu ngi bañ pour gaañ yonent bi yonent bi ni ko nikk ne ko loxo bu wow bii la yàlla gërëm ndax dafa wow ci liggéey pour jëriñu